Euh, Laurent ba ak ki nga xamante ni mooy booy palaatoo yàlla dogal mu am ci ndam coow lu nag bàyyi woon na combat bi dina taxaw du taxaw est-ce que bu Siteu dina ko jël est-ce que Laurent ñeme naa bëre ak moom xam nga coow lu bàyyi woon na trop ba yàlla dogal combat bi taxaw coow lu gën a coow lu gën a gën a yokki loxo gën ëppi loxo sax laa bëgg a wax ah ba tax na keroog démb nag lañ doon jëflante ñoom ñaar jëflante combat bu métti combat bu neex bokk na ci combat yoo xamante ni démb moo dàq ci arène nationale na combat yu neex mais ñoom ñaar seen combat coow na mu toll noonu la bëre ba toll wala boog bëre ba ëpp ko sax ma bàyyi ko mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi bu Siteu nuyu naa la. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent di sant samay ñaari waajur di sant waa Géejawaay bu baax di sant tamit ñuy jàpp si combat bi ñëpp di bëggee tamit sama waa koñ tamit surtout gars yi xam nga maa ngi leen bëggee bu baax. ñoom Baybas Fall xam nga Ousseyn Moussa xam nga maam Cheikh Mafia bi gaa yëpp ñoom Issa gaa yëpp moo loolu. Mhm. waa di bëgg naa waa koñ bi ñëpp. waa di wax ne aw ma seen fay quoi di bëgg dem fépp fu sama supporter nekk. te que dem boo xoolee mbooloo bi génn fii nii rek man sax ma yéem. xam nga dawal ko du scooter yi xam nga Mafia dëru bi bëggee gaa yëpp nag. waa di jégaluwaat bu baax nag di tuubaat bu wér a wér a wér a wér. ñu gis euh, préparation bi naka la demee woon. sa digganteeg Laurent ah, préparation bi. moom nekk na loo xam te ni moom métti na te parce que préparation combat moom métti na métti boo xam surtout moom bii moom bii moom da see raw dama da nga ko changé. lii yi ngay entraîné. Mhm. séance d' yi man ci bëri doon naa mbëkkante ak yow. ngay jugee saal wala ngay mhm. dem entraînement wala nga fay ngay nga fay jugee di ñibbisi. waaw waaw fu si mel ne parcelle mhm. ko dénk soo xoolee sama combat ma ak Malick Ndiaye sax fa laa préparé combat bi waaw di comme mooy loolu di waaj bu baax a baax a baax. Euh, mhm. mais bi ngeen ñëwee ba ci biir stade bi bi nga dugg see gis say supporteurs gis sa adversaire bi nga dugg see démb lan nga yëg stade bi. waaw ma dugg see moom mooy loolu li may yëg moom muy xam nga géejawaay bu génn ñëw dooleel ma soutenir ma benn baraak maanaam foo xalaat. dama la ko chaque jour dama koy wax dama naan Bou Siteu man nekkuma mboru koñ waaw maanaam mboru àdduna la bu jógee ñëpp jóg di may dooleel waaw moo loolu démb daal moo loolu macha ko quoi. Euh, ma ñëw ci digg géew bi. abi sifflé rek nga tàq ci kaw waaw Tafataka xam nga rek ngay bëre koo xam te ni tamit xam nga moo loolu parce que may sens. Hmm. kon kooku waroon nangu mu lay diriger quoi. waaw mooy loolu dama dama pare woon pour diriger ko te gis nga combat bi nu mu demee. nga bëggoon a xeex ak moom. non bu moom xeex ak moom sax dama ko bëggoon yor rek dama ko bëggoon yor rek ba jàpp ko mais gis nga at bu sifflé day arrière daw génn xam nga mooy loolu ba presque quatre fois xaw ma. ma rek waaw bëre bi daal neex na trop. mais mais dafa mel ni bi nga commencé xeex bi bi mu la ci fekk see euh, yóbbu na la ardo nga dem dellu si waat ngeen xeexaat mu yóbbaat la ardo nga dem dellu si waat est ce que nekkul xeex bi moo doon avantage am sa diggante yow moom. non non te parce que moom benn dóor la ma dóor dóor boobu noonu moom moo tax ma rek moo doon <laughs> naaj sama bakkan bi waa moo te parce que avant combat dama ko waxoon dama ne maa moom suñu combat Ardo la si am wàll xam nga def nañ émission ma wax la loolu. Mm-hmm. waaw yóbbu naa ko Ardo yóbbu na ma Ardo waaw loolu la rek benn coup la la rek dama doon dóor far loxoom ñu daje. Mm-hmm. waaw ma dem si Ardo nag mais dañuy bëre ba si yàgg nii rek deret bi di xelliwaat ma demaat. waaw nekkul loo xam dañuy bëre mu may dóor mu may di dem ardo non benn dóor la ma te bakkan xam nga ak tàngaay beeg yooyu noonu da ngay leetoo tuuti sëgg sax sa. muy sëñ bi xam nga. yaa mm-hmm. bi yàgg. Hmm? la moo taxoon combat bi yàgg loolu waaw non moom am na doole liggéey na si combat bi bu baax sax ndax bañ dalantee moom liggéey na te képp ko xool star xam ne mu liggéey na liggéey naa. Mm-hmm. mais bañ dalantee waaw bañ dalantee moom moo loolu. waaw saf na sap waaw. xaaral nga mhm. ci bëre bu toll noonu ak combat bi yàggee noonu boobu yàggaay. waaw xalaatuma ko woon tapala comme lu ma la wax koo xam da ngay siffler muy muy daw waaw da xam nga rek mu daw génn géew gi ñu sa arbitre di woowaat ñu mu siffler waat ma doxati ko mu daw arrière génn géew gi xam nga ñu avertir ko presque trois fois mu daw génn. waaw foofu dinaa fa ñëw parce que ñu ci mhm. bàyyi nee nañu moment bi amee trois avertissement. la moo tax taxawoo nga gérer combat bi. Mhm. Euh, euh, xaar boog comme ni gars yi di def gérer combat bi bañ jël benn initiative. Mhm. waaw man pour man moom loolu moom man boobu rus naa di bëre moom di ko gagné par parce que am na quatre avertissement man aw ma dara su ma neexoon mënoon naa ko taxaw di léetoo ba temps bi jeex wala ma jàpp ko bu ba mu génn mais rus naa di bëre kooku noonu di ko par ay avertissement moo tax combat bi man bëre rek laa gëm. da daal daan ko ba mu ne janjang. waaw kay man loolu laa pare woon quoi mais. basé si comme mbër yi li ñuy def kii am trois avertir wala quatre avertirement nga bi jeex nga gagné ko loolu man loolu moom rus naa ko sama diggante ma ak moom quoi. mais ñu ci bàyyi nag ñoo ngi doon xalaat ne jël bi nga ko jël est-ce que du risque parce que ku def benn combat nga toll ci neuf combat xaw ma dix combat. jël kenn nga xamante ni euh, ci benn combat la nga jël ko mu daan la ñu ci bàyyi nee nañ woon risque la nag ñu ci bàyyi nañ xamul loo ci dugal peut yaa ngi doon wax xaalis bu bàyyi moo boole woon est-ce que lii ko ci. non xaalis boole wuñu sax te parce que comme lu ma la wax coow moo ñu boole rek. Mhm. maanaam coowu làmb moo ñu boole. waaw coow la rek moo loolu looloo taxoon sax ma jël ko xam rek may ko sens ñu bëree waaw loolu kese la wallaahi. mu daan la. Mhm. bi mu daanee dégg naa nag jooy nga fa jooy yu métti yoo xamante ni lan moo woloon loolu. non jooyu ma de <laughs> sama gars yi kay ñoo doon jooy di gaañ seen bopp moo loolu parce que moo loolu man dama doon làmb sport laa ko jàppee. waaw man dama doon bëri di daan ay nit. waaw bi mooy sama dix combats sept victoire trois défaites ah. mm-hmm. waaw moo loolu ba ma daanee moom gars yi laa yéeram rek mais man moom <laughs> loolu def ma dara bari jëm naa. gars yi lëngoo ma génn ñoo li ma si def si xaalis moom bëri na ko waaw waaw mën na ay one brick cinq cent sax su may jum wala mu ëpp ko. yegg na un million cinq cent. wallaahi barke Serigne li may wax sama gars yi xam nañ si dara. wóor na Seydina combat bi toll woon foofu wala adversaire bi woon foofu. non combat moo toll foofu te parce que moom mooy loolu man nekkatul ma ak adversaire yi comme lu ma la wax rek te parce que moom su ma nee nekkatul ma ak adversaire amaana ñu bëri duñu may waxee. Mm-hmm. waaw te parce que mooy loolu. waaw nekkatul yaa ak adversaire yi quoi mais xam nga am na loo xamante ni kenn du xama rek kenn mënu ko wax si télé quoi. Hmm? million cinq cent bëri na ci làmb. wallaahi bëri na ci waaye déggoon ma sax combat bi li ma si financé combat bi li ma si financé mënu ma ko sax wax wóor na alxuraan. kon lamb mm-hmm. metti na non dafa metti wóor naa lépp lu ñu la jàppalee da nga ko siy def wallaahi combat bi metti na trop. Mm-hmm. Euh, lan ngay wax lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo lay ñoo lay ñoo say supporter say am di jàmm lan nga leen di wax. waaw di leen jégalu wàll di leen wax ne Bou Siteu xam nga moo loolu xale la waaw man bëre rek laa xam waaw dama doon bëre tamit daan ay doomu jàmbur. Mm-hmm. kon tey su ma bëreeg nit te ñëpp gis nañ combat bi ni mu demee. mais du nekk fii di saltel victoire jàmbur wala dara daan na ma jël bu leer nañ. Mm-hmm. waaw dafa tax dañoo jàppante ma téye ko dem ba koy déclenché mbot far mu daw yéeg ma caxabal waaw yéeg yéeg ma caxabal quoi may siggi nag fi tombé na mooy loolu. Mm-hmm. waaw ma demee la mais aw ma blessure ma dara waaw dafa tax damay gis ay mbër yoo xam dañu leen di daan rek ñu ne am na dañoo amoon blessure aw ma blessure aw ma dara. combat bi kenn yàqalu ma. waaw combat bi maanaam li mu lépp lu ma waroon def yëpp def naa ko ci combat bi amul nit ku ma yàqal waaw aw ma blessure aw ma dara wallaahi du ma saldal victoire boobu daan ma jël bu leer mais nañ xoolaat ci bëre bi waaw bu si da maanaam lépp lu ma waroon def def naa ko si suuru mi temps kon xam nga ni li ma def def naa ko. waaw jàpp sama adversaire dem bay def action far mu yéeg ma caxabal. làmb la waaw moom nag cuunewul quoi moom daanaan mbër la. Mhm. waaw moom daanaan mbër la quoi. Uh-huh. lan moo nekk sa ay combinaison yu taxaw. da ngay xaar ñu tas wala da ngay ma sax pour toog defarawaat man làmb mooy sama métier. suba suba bu ñu indi laa doon pour jël ko pare damay bëre làmb laay def man fii di kii de làmb rek mooy sama métier bu ñu suba suba suba ma jël ko. ma jël ko waaw. làmb mooy sama métier man su ma toogee bëre ma mooy loolu. waaw. boo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax. waaw su ma amoon kàddu yu mujj rek muy di sant buusa rek buusa maa ngi koy sant bu baax amu fayam. waaw jàpp na si combat bi ko xaar mu jox ma ko lépp waaw lépp moo la lépp daal si moom la quoi kon buusa dama koy sant bu baax su mel tamit Tafaaya président njaboot gi Tafaaya tamit jàpp na si combat bi ñëw na fii may ma xaalis bu bëri waaw ay Mama Dior Pape Toufen xam nga. gars yi ay Fouta ñoo ñëpp a jàpp si combat bi dooleel ma xam nga gars yi maanaam ñi si jàpp ñoo bëri ku si mel ni Tony Tony maa ngi koy sant bu baax ak Omar Sané Omar Sané moo nekk fii Gunaas waaw maanaam ñooñu dañ ma soutenir sama combat seetaan nañ ma waaw seetaan nañ ma quoi waaw kon Omar Sané maa ngi koy bu baax di nuyu Alsaan waaw di jégalu gars yëpp nag di di bëggee tamit Tony moom mu ngi ba Europe. waaw mu ñoom mbay tool doo gars yi toona xaalis bëri la ma yónnee jàpp na si combat bi baax ko su mel ne tamit moom mu France waaw Alsane Alsane Paya waaw moom maa sant bu baax tamit jàpp na si combat bu baax waaw maanaam combat si jàpp dafa bëri waaw si jàpp dafa bëri ay ñoom tooni gars yi nekk si jasora yi gars yëpp waaw ma mag góoraa tamit ma jàpp na si combat moom tamit di ko jégalu bu baax te parce que combat ma ko jëlee moom nanguwul woon mais après gis nga. waaw moom la bu koy tuubaat di ko jégal bu baax a baax a baax di nuy sant tamit Omar Baas waaw Omar Baas tamit maa ngi koy sant bu baax a baax a baax jàpp na si kombaa bi waaw ay ñoom maa neen na gars nekk fii si koñ bi xam nga waaw maanaam combat bi ñu si jàpp dafa bëri ku mel ne Daouda Mbow tamit jàpp na si international Daouda Mbow mu ngi ba France waaw jàpp na si combat baax di sant Cheikh Kouyaté bu baax ak Zahra Jabaram ñoo ñëpp dajale nañ xaalis su bëri jox ko Daouda Mbow pour mu ñu soutenir ma. waaw kon sax naa maa ngi koy sant bu baax jabar Cheikh Kouyaté xam nga di sant maanaam ñu jàpp si combat bi ñëpp wallaahi su ma limee ne am di tamit am di jàpp na si combat bi moom mu ngi ba Cité Fadia waaw am di moom maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant maanaam ñi si jàpp ñoo bëri wallaahi. géejewaay gépp wóor na yàlla ñi si jàpp dafa bëri sculpteurs yi xam nga gars yi yor moto yeeg ñëpp gis naa convent bi gis naa lépp. waa di Touba di jégalu waa sama waa koñ tamit bu baax a baax di leen wax ne làmb nii la rek. Mm-hmm. waaw Bou Siteu gis nga waaw tegale naa fi ay ndam gis nga démb ñëw mu demee noonu kon dañuy ñaan yàlla defe di yem fee xam nga di bëggee gaa yëpp nag di bëgg. Babas gaa yi moo la mafia bi seen xaalis lañ jël dugal ko fii ñoom ñoom Fall waaw gis naa daal combat ba mu taxawal liñ si def yëpp gis naa ko te yàqamti naa gaaw awu leen waaw ñu may jàppale yàqamti naa gaaw awu leen waa ndax gis naa gis naa ni seetaanuñ ma quoi waaw maa ngi sant bu baax a baax a baax di fàttewoo kenn waaw ma kenn waaw xam naa fàtte naa moo tax ñi moo bëri. Mm-hmm. mais maa ngi bëggee gaa yëpp ku si mel ne Pape Toufe nag waa koñ bi ñëpp maa ngi leen sant bu baax baax. Mm-hmm. waa di sant fépp sama supporter nekk rek ba jàmm gën ba foo xalaat xam nga ay alinaar gars yi waaw ñoom yànku ñëpp ma soutenir jàppale ma. maa ni sant bu baax a baax Ouzin wallaahi. Mhm. gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo tey ñu seet si woon ki nga xamante ni mooy Bou Siteu waxtaan ak moom ci combat bi mu jógee waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo nekk ci kanamam xanaa di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen mbër si Wassare Lamb jaa ngeen jëf.